laaj moo daal di wundu lépp lu ci tege. bi ñu ñëwee laaj leen lan moo xew ba ngeen def commencé di def euh, ciment ak suuf ba pare di gas tali bi ils ont déclaré cette zone militaire. ndànk-ndànk nag yëf tàmbalee jax diggante ña fa yeewoo ak gendarmerie bi. gannaaw yëf yi ba mu amee ba léegi nag ñi dëkkee Ngor ñoo ngi fàttaliku boobu bés ki ci njëkk ñàkk bakkanam di as ndaw bu am fukki at ak juróom ñi ma bokkaloon classe nag ñoo xalaat daal di koy delloo njukkal. di wane ne fàttewuñu ko benn yoon suñu xarit la moo bokk benn lañu ci namm moo di yoon daal di def li ko war itam ñi ci jëlee ay gaañu gaañu ñu daal di leen jox ay ndàmpaay. waaye yemul si loolu injustice bi yemul si loolu rek dafa ñu defal ay handicapés à vie mhm. on a beaucoup de jeunes les images sont là El Hadji Baytir Fall qui est décédé récemment waa Ngor gépp bu ngeen gisee ñu koy tudd si affaire bi c'est parce que ñun ñëpp xam nañ ñëw ñëpp am nañ image yi nga xamante ne moom lañ ko doon torturer. leneen li moo di joxoñ baaraama tuuma ñi fi nekkoon. am na amnistie bi état du Sénégal def à travers. Euh, son, son, le président Macky Sall on n'est pas d'accord sur ça. ki yor euh, kàddu Ngor Debout euh, di xam xamle ni la fa xewoon ci bésu juróom-ñetti fan ci weeru mai 2023 jaarul yoon ki fi nekk élimaanu jëwriñ yu Ousmane Sonko temps yooyu nag fekkoon mu nekk opposant mu doon woote rek ñëpp daal di taxaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeewoo Ngor waral nag ña fa yeewoo di am yaakaar ni dina leen taxaw